mbokk yi nuyu na leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax ñi ngi leen di nuyu fii ci Leewtoo TV tey nag ñi ngi fi nga xamante ne bii mooy Patar su ñu nee Sambe xel yu bëri daañu dem ci Boy ñaa ndax fi mooy dëkk cosaanam fi la papaam cosaanoo fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee suñu papa Père Dogol Aliou seen borom Saay Jaamaane production moo fi tëgg làmb nekk ay combat yi nga xamante ne bii combat yëpp nar a neex wante nee naa leen tey di ngeen dund ambiance su làmb ndax sama yaay mama Ndeye Fatou Adama Jali mooy woy làmb ji wante moom moo ngom le gose masik doomu suñu papa Babu ngoom moom mooy tëgg làmb ji incha allah di ngeen am ambiance mais combat yëpp danañ leen ko toppal Aliou Sène borom Sadia Mané production sama xarit bi kenn du yow macha allah yow waa Sambe wàccoo nga ak ñu waa Sambe macha allah bis bu toll nii ku ko tëgg ànd ko fi nga xamante ne bii fi nga dëkk cosaanoo fi yaroo fi màggee fi Sadiane wàcc na sama gars ayca ayca El Hadj arbitre soufflé na premier combat bi diggante Moon ak Piment bu xojil Moon ak Piment waaw waaw cay laal yoon Piment la ne Piment la ak Moon. Piment ak Moon. Piment ak Moon mooy kaani. kay Moon mooy bukki. Moon mooy bukki. laa ilaaha illallaah bukki ak kaani. kaani ak bukki. loolu moom nu muy demee bukki day yëy kaani wala kaani da fi tax si bëti nu mu demee. wala kaani day day day dugg ci biir bët. eh ku dem noonu. laay kaani saram la gaa yi ñu ngi naan kaani saram la wala kaani kaani kaani gowaana. kaani saram wala kaani gowaana wala ka ka ka ka ka ka. sëlax am na. wala wala wala lan cukkule cukkule am na kaani cukkule. xanaa mooy bu gàtt bi. noo mooy bu gudd bu sew bi. <laughs> kaani cukkale boobu moom maa ngi koy soog a dégg ka kaani cukkale xanaa boobu saf na. boobu am na xet nag xet gi moom neex na trop mais taxu koo saf mais xet gi moom macha allah. kaani salade nag. kaani salade waaw macha allah waaw moom tamit daa lewet boobu boobu daa lewet na ci baax na ci tufe <laughs> décoration. ay ca ñaari xale yaa nga ca laal yoon ña ngay dara amagul cay loolu. ho ho waaw waaw cey elage ñoom ñaar ñi ngi roofoo jàppante tegante bopp loolu la ñuy wax ndengeñ attention la ilaha illallah ho Pima door na ko tànk door daan na ko door na ko door na ko tànk laa ilaaha illallaah waaw kaani ga dugg na ca bëti bukki ba billaay dugg na sa sax sa sàpp ba bukki gisul waaw bukki bukki bukki na tanaa est-ce que du lumière bi xam nga bukki du gis lumière bukki du gis lam lëndëm lay dox de <laughs> kaani indi ko ci leeraay gi ba pare la ko wax daana ko car kaani gi si biir bët daal di koy jàpp mba moom lu rëy de say loolu jàll ci deuxième komba bi diggante domino ak gaynde patar gaynde patar moo féetee suñu loxo ndeyjoor moo ngemboo ngemb bu weex bi domino moo ngemboo ngemb bu xonq bi arbitre soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar ña ngay lawaatoo waaw waaw cey domino moo ñu won gannaaw ngemboo ngemb bu xonq bi waaw waaw ayca domino gaynde patar moo takk téere yu weex yi ca loxo càmmoñ bi wala loxo ndeyjoor bi ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo waaw waaw attention domino cookaas na domino cookaas na gaynde pataar gi mel ni kuy dox ci kawam attention mii me na mais demul déclenché na coup mais dalul cey Aliou Sène eh domino dóor na domino dóor na domino na yi mënoon naa gën a leer waaw waaw oho oh. waaw waaw gaynde Patar door na gauche dooraat na est-ce que dal na domino daw na domino kor na waaw day kor kay attention arbitre sifflé na lan moo xew attention eh eh ay ca élage ñu dellu ca combat ba diggante domino ak ki nga xamante ne bii moom mooy gaynde Patar attention ñoom ñaar daw nañ daje ñoom ñaar daw nañ daje jàppante nañu laa ilaaha gaynde Patar jàpp na ngemb lan la bëgg attention domino koy jéem a file ma nga jàpp bu takk takk na kal na laa ilaaha illallah xala ba bañ na oh oh gaynde Patar waaw waaw gaynde Patar jàpp na ñaari loxom ci ngemb ba pare ndengeñ waaw waaw gaynde patar attention domino ma ngay liggéey la ilaha illallah xale ba kal na domino kal na génn saako ya sore ngeen de lay laax yëlla laa oh waaw waaw jeex waaw waaw domino daan na ko de waaw waaw ay ca élage Sa bu jannatoo ngi noonu xeleb géejawaay baa nga doon Sa borom jannatu waaw waaw noonu waaw waaw borom Touba Ndiarème borom Budaay cey nag bi junior Saloum la àndal ak guy gi waaw waaw oh

coora loola a bira coora jaam noga fa baxaade a bira coora jaam noga mujeen fa fa baxaade

Bolokaas Bolokaas. Bolokaas. Bongoye. Bolokaas Bongoye. waaw. non non nu mu ñëwee. dégg ma. nu mu ñëwee Bolokaas nu mu ñëwee. ah Bolokaas ah ñëw na ak doole eh. xam ngeen ki ngeen di bëre. ndaanaan la de. xam xam waaw xam nañ ko waaw. Eh. waaw. ñoo gisee lamb ji. kooku ñoo ko mun quoi dañ koy door. maa ngi gis sànq nga yëngal quoi. Ah, ji moom ñoo koy yëg ñu bëri yaa ngi koy sant quoi sama Baye Fall bi naka waa. naam naas. lépp jàmm ah. waa verre yi nga koy jox après. waaw dina la ko jox quoi. mais fan la jógee Ngoye. ngi jógee Ngoye bu ñu wax Sindian quoi. ànd ak blocage. ànd ak blocage. mais nu ngeen gisee lamb ji. bi moom ñëw daan ñibbi quoi. am lu ñu teg quoi daan ñibbi rek lu ñëw ak doole quoi. bu soobee yàlla quoi. ñun booy caaro lañu quoi. booy caaro lañu booy caaro yi. booy caaro waaw. bu ñu ñëwee dañu daan ñibbi dañu ànd doole waa barke maam Serap Fall waaw Rola Rola la ñu àndal Rola Ndiago xam ko. ah Lora. waaw mooy suñu pataro quoi. Loro benn. waaw eyo eyo. waaw borom eyo eyo. on keso reso moso adok bunu guna gana borom ne pax lu dag doy lu sos ambili ko tanga la man différence dañ ko moj alias borom guna gana borom ne pax. du dag di lu sos ambil ko taxalamat si wes dañ ko moj amul puus amul talone barke Bamba barke rola mooy door boobu ka bila walay a bugu papa bilaay barke maam serawa yaay barke borom daaro loolu lañ di may ci bi barke yàlla sama diggante bilaay yow <laughs> leen di ziar. delloo ziar. naka waar. sant yàlla noo leen dundee ah, nañ de. Eh. waaw yéen fu ngeen jógee. ñun Touba Ndiarème. Touba Ndiarème. waa ñu nag bi suñor ngeen la ay xale bi ngeen di bëre. a ah, mais ñun moom gëm nañ li ñu yor moom. Sa ñun xam nañ li ñu yor de. jannatu bi. wallaahi ñun xam nañ li ñu yor bëre bëre kuy bëre Touba Ndiarème nga ñu jàng si bëre. waaw kon nag ñun jaaxaluñu li ñu nekk ñeme nañ ko torop. Hmm. mais nu ngeen gisee Aliou Sène ji tëgg ko mënoon koo tëgg stade mais fi mu juddoo yaroo fi màgg fi mu ne fi laa koy tëgg mais loolu moom rafet na moom delloo bu delloo mbaat ca ca ndaala moom rafet na moom mais moom vraiment moom dañu ñaan yàlla mu sotti rek di ñaanal waaja moom lu mu bëgg na ko yàlla defal moom Aliou Sène way lu mu ko yàlla defal parce que eh, rok naka mu mbay lëm jaam gis naa la démb nga andi bébé rok waaw démb wala barka démb la barka démb waaw militant yaa ngi ci gannaaw gaay ba xale yi. waaw maa ngi si di ak ñoom lu metti waaw di masawu bébé rok nag parce que dañ koo teg lu metti mu ñëw waaw suñ borom ñëw ak dogalam mais ku nangu la parce que luñ ko teg mu tegoo ko xëy na yan bi moo gën a moo diis si moom sax ba bu demee si làmb li mu war a def yëpp di ko def waaw ñoo ngi siy jégalu supporters yëpp bind nañ recours nag parce que booy bi dafa teg fes avant muy muy muy muy. première ah. premier site. nga leen di ziar. delloo ziar. a waar. sant yàlla ah, nañ de. Ah. waaw yéen fu ngeen waa ñu nag bi junior ngeen ànd. nag bi junior la ñu ay xale bi ngeen di bëre. a ah, mais ñun moom gëm nañ li ñu yor moom. Sa Thiès. ñun xam nañ li ñu yor de. jannatu bi. wallaahi ñun xam nañ li ñu yor bëre kuy bëre Touba Ndiarème nga ñu jàng si bëre. waaw kon nag ñun jaaxaluñu li liñ nekk ñeme nañ ko torop hmm. mais nu ngeen gisee Aliou Sène mu tëgg lamb tëgg ko mënoon koo tëgg stade mais fi mu juddoo yaroo fi màgg fi mu ne fii laa koy tëgg mais loolu moom rafet na moom delloo bu delloo mbaat ca ca ndaala moom rafet na moom mais moom vraiment moom dañu ñaan yàlla mu sotti rek di ñaanal waaji moom lu mu bëgg na ko yàlla defal moom Aliou Sène way lu mu bëgg ko yàlla defal parce que eh, rok naka mu mbay lam jaam gis naa la démb nga andi bébé rok waaw démb wala barka démb la barka démb waaw xam ne temps yaa ngi ci gannaaw gars waaw maa ngi si di ak ñoom lu metti waaw di masawu bébé rok nag parce que dañ koo teg lu metti mu ñëw waaw suñ borom ñëw ak dogalam mais ku nangu la parce que luñ ko teg mu tegoo ko xëy na yan bi moo gën moo diis si moom sax ba bu demee si làmb li mu war a def yëpp di ko def waaw ñoo ngi siy jégalu supporters yëpp bind nañ recours nag parce que booy bi dafa teg fes avant muy muy muy muy. ah. premier site. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV bëgg nañ leen ñaanal leen jàmm bu baax taxaw sama rak sama xarit sama jigéen la Lion Nogoy borom biir arène di jàmbaar di jigéen ji mën góor ñu bokk terrain bi nag waaye mën yóbbul yóbbuluñ ko leen mën mënaluñ ko lenn bu ñu defee benn mu def fukk macha allah yàlla na jàmmam yàgg. Euh, dem ba créer créer benn site internet bu boppam tuddee ko biir arène di ci liggéey liggéey bu am solo maa ngi lay ziar. delloo naa la ziar Mbaye Babacar borom Diourbel di la ziar di la baalu àq di baalu ñëpp ak di ñaan yàlla boole ñuy jéggal yàlla nangul ñu suñu koor lépp lu si waay jaamu yàlla yàlla nangu ko tey ma fekk la na sa dëkk nga dalal ma macha allah waaw ndax nee la ba nga jàppee ba tey bàyyi woo macha allah. ma ñëwee ci lit simple bi yéen a ma doon wax mbëri xamoo woon mbëri. <laughs> mais ne <laughs> nga ndax ku neex a jàngal nga ku neex a wax nga ndax mbër muñ la woon ni la diw tudd bu subaa kenn du wonaat mooy loolu yaa gën a xam. waaw ñoom Lamine sama doom yi général ñoom Zamro ah gars yi famille TV TV bëgg naa waaw booy séeréer sama zimo ah ay Babacar Korsi ñoom ñëpp maa ngi leen di kontaan 100 pour cent lutte simple bi daal bëgg naa ñoom ñëpp daal tubaar fakàlla euh, wax nga ko 100 pour cent lutte simple mel ni yow lutte simple moo lay dundal dama gis parfois boo nekkee ci làmb surtout bu suñu yaay yëngalee dootoo mën a téye sa bopp. waaw moom kenn la ci man xam ga tey moo ñëwee Diourbel jaamaan production woo na ma sax ni ma doo ñëw ma ne ko man man du ma seetaan lit avec frappe. dem na yàlla dafa def ñun ñu waroon ñoo décorer Mbadakhoune benn grand bu ñaan naan Ablaye Thiaw bokk ci baari production. yàlla def na ñuy dem dëkk bi ñu waxoon ak bi mu nekk nekkete du benn te fekk mu ngi war a woy lan mbenge ñuy tourné am nañ gàllankoor si yoon bi dem nañ xamuñu dëkk ba ñu wëññeeku ñëw ba si ba soor ñu foofu xam nga ñoo faa yàgg mais xam nga naan bu nit ñi di wut alal wutal nit ñi soo amee nit ñi ñàkkoo dara vocal laa def statut rek sama grand bu ñu naan si toor woo benn xaritam benn gendarme Elage Ndour bu Pape bu ngaan sox sox mu daal di woote si gendarme yi gendarme yi bàyyi ñu ñu dem ba bi ñu egg lan mbenge sax tuulee télé duñ fa fekk làmb mais diir ba mu fa def gàtt na mais saf sama yaay moom man moom rek laay topp quoi. dafa mën bis. waaw daa mën bis moom day faatu Adama Jalingom la cantatrice au six no ndax nee naa la ragal a féete day xañi wërsëg te dafa def ma ñëw si làmb nee avant may doon TV TV wala may nekk si laa ko doon béggee kon tey du ma nekk TV TV gars yi xam ma ma bàyyi ko ndax dama doon seetaan làmb rek amatrice laa nee naa leen man laal yoon dañuy jiital amatrice gi buñ jiital ne laal yoon euh, reporter la buñ jiitalee reportrice bi rek dañuy juum amatrice la avant muy doon reportrice tey jii mu doon topp làmb di ko béggee ba tey jii mu doon li mu doon du tere du yàq si sama diggante man ak moom terewul na ñëpp la ñuy bégee di leen kontaane di leen ñaanal jàmm ndax ne naa la gars yi moom fu ñu samp rek 100 pour cent lutte simple ah jom foppale lum la séeréer bi wax pël bi ni lambo wi lii soose bi ni lambo naa la diyaa naar bi ne ko ana xay ni lambo Acha Domino sama ay sant yàlla bu baax a baax loo bëre waaw dama bëri ay conseil ay mbër mbapat lañ chaque semaine ñu ne ñoom laa li yoon ndey faatu ñoo ci àll bi di bëggee bawol bennoo ñëpp di ñaanal sama doomu ndey sitam Arène ak sur yëpp sa kaw sa kanam parce que ay lamb loog leen lamb moo la ñor tu di sant waale ñëpp sama gars yi jógee Kaolack surtout waa Fass amu seen fay Pambay maa ngi koy sant. oto moo fay oto bi di sant waa tuwaay jigéen oto ñoom bés ñoom diiru. Balla Gaye 3 ndax man xam nga di sant sama gars yi yëpp bàyyi ma kenn ku lim juum avant avant. mais li nga bëre dafa garaaw quoi. waaw parce que ay mbëru mbabar lañ bëree rek lañ xam. barki démb barki démb sama combat bi barki Baye Abdou Karim Mbacké laa wax man ci àll bi di mbabar xam na ñun lambre mooy ñor waaw bëree lañ xam. waaw. bii mooy sa ñaata combat. Euh, am naa ci benn défaite benn niil six victoire. waaw fan nga jëm. instant bi nag maa ngi xaar xam nga. grand combat wala avant grand combat ku bi ma joxee sa avance léegi léegi ma reeree ko waaw. waaw pour jël seen avance. naa pour jël seen avance bu taxawoon léegi ma reeree ko. lamb rek ma yor njob rek a ñëwaat. ayca élage ñu dem ci combat spécial bi bu ci dugg ak blocage bu ci dugg mu am bu zone bi blocage moo ñu won gannaaw hoho bu ci dugg blocage eh bu ci dugg déclenché na mais dalul bu ci dugg blocage waaw waaw. attention jël na tànk ba blocage jël na tànk ba dina ko bloqué wala da koy débloqué bloqué da koy bloqué wala da koy débloqué est-ce que dina ko bloqué est-ce que bloqué dina ko bloqué gis nga bu ci du bu ci bu ci dugg bu ci dugg nooju na ko léegi waaw gis nga laa ilaaha illallaah ho loo ci munti dégg bul ci dugg mii daa mën a tànk waaw ndax biñ fiñ koy yegg bu nekkul woon ku mën tànk kon daanu la kon cuune ba léegi daanu la billaay walaay taalaay mais blocage da kaa bloqué nag waaw génn na ci gis nga roof roof na jaxabal ba mboot mboot laay la laay la xëy la la waa tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat waa tat tat tat ko gisee journée Aliou Sène borom Saay Jaamaane production. macha allah euh, journée bu spéciale la jox la nu ndëmënal def na nu mu daan def waaye lu ñuy déplorer rek mais Saay Jaamaane production ñëpp xam nañ ko si wàllu événementiel moom mi ngi nii contrôler sa à distance waaye lamb ju mel nii mënoon na ko yóbbu fi nga xam ne Mbaye Babacar mooy stade Elimane Fall ndax xam neen ne am na gannaaw xam nañ ne il organise bien mais xam nañ ne aussi Diourbel bëgg nañ lamb mais lamb ji daal la prochaine fois na ko yóbbu si stade bu mag mais noo gisee yi combat macha allah actuellement nii ñoo ngi war a dem si combat bi nga xam ne mi ngi dox si ki nga xam ne mooy bul si dugg ak blocage mais ñaari combat yi nga xam ne ne moo njëkk macha allah combat yi mbàccum gerte la mbàccum gerte la roq bu roq bu se roq bu sew la am xaw ma nu koy waxee xaw ma ci luy baax la waaw mi ngi noonu en tout cas combat yu spécifique la euh, ndëbënal bu spécial lañ jox te damaa xamul nag kan moo ko dee combat yi est-ce que lu yow. ayca <laughs> Cheikh jaajëf. xawsu waaw mbay jay jay jaw le professeur Thial Mbaye jay jaw Thial Mbaye maa ngi lay waaw ziar naa la ziar naa waaw maa raw waaw maa ngi sant yàlla bu baax noo gisee journée Aliou waaw naas na rafet na mbay euh, parce que li mu def ni innovation la ni waaw waaw mbay sa wew tànk parce que stade bi suñ ci mel nii gis ko à travers ku mel ni yow ñu gis mel nii dina leen ñu def fi turbine xam ne daf daf koo laaj parce que wax dëgg yàlla xale yi ñëw nañ en masse te xale yi ñoo yor réew mi mbay te dañoo bëgg làmbu ñooy ëllëgu réew mi kon lii motivation la tey c'est la première fois vraiment ñu ciy euh, ñaanal ki nga xamante ne bii moom la ñu tuddee stade bi muy Fallou seen ñu ñaan suñu borom euh, yaram ko taxaare ko àjjana di wax ni euh, bis la bis bu mag bis la boo xamante ne bii macha allah bis la boo xamante ne bii wax dëgg yàlla mbay. ñëpp ci kontaan jaajëfee Sadia Mane production. jaajëf El Hadj Bour maa ngi lay ziar. grand Mbaye Babacar maa ngi lay fay bu baax a baax di kontaan ci yow macha allah waaw tey kontaan nañ trop grand Mbaye Babacar euh, di la ñaanal bu baax ci seen bi nga xamante ni mooy euh, Lutte TV di chaîne bu am doole macha allah Sénégal yëpp di ko bàyyi xel. Euh, tey ñu teew fii nag ci journée Sadia Mane production ndeysaan di lamb ju neex lamb ju am ambiance waaye combat yu neex combat yu am choc macha allah grand bi. waaw looy wax Aliou Sène Aliou Sène dama koy wax mu gën a góorlu rek di ko wax ne tëgg làmb yombul fii mu teg tànkam bu mu ko teggi foofu la waaw ayca alaaji njool maa ngi lay bëggee di la bëggee bu baax ma xaaj sikkim bi sax na de waaw waaw dafa gën a rafet parce que njool sikkim lan may bàkkee chaque jour sikkim dafa war di gën a rafet mais di kontaan bu baax a baax ci lu ñu muy làmb waaye di kontaan ci waa Sa Diamane parce que lii ñu def nii bokk na ci lii dekkil seen bi parce que lii day dundal fi nga xamante ni mooy commune Sambé ak Patar di ko rafetlu bu baax a baax waaye tëgg na nag combat jinne tàkk-tàkk dina bari tey. grand maa la ko wax muy nag yu si ñor. saa Thiès bu jeewal. tàkk-tàkk la ay ay ku ko tardé waaye nan ko calcul site bi nga xamante i ci nga nekk. Leewtoo xam nga man damaa naan damay bañ a juum te juum asakay wax la ma ne ko ci site bi nga nekk dan ko ci yow yal na sa jaamu yàgg Mbaye Babacar ayca Alaaji Ousmane Ndar waaw mais tey da ngaa sañse waaw gis nga gis nga ñëw dooleel sama doomu ndey rek ñëw dooleel sama doomu ndey quoi di ko ñaanal journée bi suñu borom dafa ko ci réussir total vraiment lii rafet na quoi vraiment waaw ñun lii mooy wane ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. yéen promoteur yëpp benn. bokk ndey ñoo bokk baay vraiment depuis suba ba léegi ñu ngi fi jàpp si liggéey bi nekk si lépp quoi ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay di ko ñaanal réussite total rek barke Serigne Touba di kontaan si yow bu baax a baax waaw ñu ngi kontaan si yow bu baax a baax. vraiment sa combat yi. non neex na moom. combat mooy loolu comme ça ayca ñaari kàddu ci Aliou Sène rek waaw ginnaaw bu ñu sant mbay jul jonim sam ñaari waajur rek waaw vraiment comme di wax noonu rek nuyu comme promoteur rek comme wala Pam Ndiaye Cola ak jaaman vraiment suñu rak la suñu lépp la ñu ngi koy ñaanal jàmm parce que li mu organisé vraiment macha allah neex na am solo kon ñu ngi ñaan fa mu almaan rek yàlla taxaw ko vraiment parce que affaire moom euh, ñëpp ku fi ñoo xam ne tey neex na macha allah ñu ñaanal jàmm rek lépp lu soxla ci àdduna yàlla defal ko non lépp neex na macha allah ñaan yàlla suñu borom àgg ci jàmm rek parce que loolu moo ci solo vraiment ñu ngi kontaane nag di ko ñaanal jàmm nag seen ñun bokk ndeeg baay barke sëñ Tuubaa njaase xool combat yi bari ñun ñaar ñu xel dem tey ñoo ànd ñu nga le ñoo nekk ci biir nii di xàlle parce que ñun comprendre nga tëgguñu mais gisoo mi ngi ni na Ousmane naan neexal na Pam Ndiaye neex kon loolu sant yàlla waaw noonu demee quoi sant ñëpp nag vraiment aja bàyyi mbay ñu koy ziar bu baax dafa baax waaw mi ngi dundal Patar moom dafa baax ni nga koy bàyyi yàlla ci loxo yàlla yàlla am réussite totale daal nga koy ñaanal noo gisee lamb ji neex na nga andi sa poulain di ko ñaanal am ndam Nabi Junior sama xarit la sama rakk la waaye Sa Thiès laa bëgg sama xarit la nga andi Sa Thiès. mu indi Sa Thiès mais yàlla na ko yàlla na ko Sa Thiès daan. ah waaw loolu laa bëgg. nag bi si ñor sa la sama ba pare waxtaan nañ. Ah? waaye Sa a laa bëgg mu daan yàlla na ko yàlla def. ragal xañe wërsëg. la ko wax ñoom ñëpp a ma jox cër waaye Sa daa hmm? sama lépp la ñoom Mbapane doo doo lépp yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko ndam. kii nag kenn la ci Aliou Sène. waaw Aliou Sène sama géer gu yàgg la. mu doon baayam ak sama baay su ma demee ba mu nekk ci làmb ma nekk ci làmb kon damay jóg pour taxaw pour taxawu ko fii mooy Patar Sambé mu ngi nii lépp ak Sambé ak benn la mais na nga xam ne doomu Sambé yi ñoo aye lu xew ñun la lu neex ñun la. luy baax ñun la. waaw waaw. loolu dëgg la. noonu la demee. waaw dafa neex. Sambé dafa neex fii la ndënd mi doon tëggee boppam. sama jam Sambé fii la nekkoon. waaw sama maam Abdou fay moo ko daan foor. waaw waaw man doomu Sambé laa géwélu Sambé laa. waaw Aliou Sène maa moom danoo yàgg. ma gis ngay sonn ci ay événement waaw dama koo ji damaa ji teraanga. Korité gi rek damaa lu baax jox ma ne ma doxalal. déggal loolu. waaw maa la wax loolu. dox la lu dëgër dox ma lu dëgër. Eh. xam nga ma see loolu loolu jikkoom la. géwélu VIP laa. Ah, kenn du moom. waaw ah, jaajëf tamit macha allah ku ñàkk ki ñaan. non non demee. maa ngi lay ziare di la sant amul benn problème Mbaye Babacar danoo bokk. waaw jërëjëf. jërëjëf te lu dagg borom ja lay आगे मिलोगे तो हम आनंद के हन्याले लाया यमुनों की सरोग यमुने यही मलोला आगे मिलोगे कोरखावा बानान के हन्याले लाया यमुनों की सरोग यमुने यही मलोला आगे मिलोगे कोरखावा बानान के हन्याले लाया belaya yorno kisaro kegle yai malolo gibiloge korma mana kyamanya alvelaya yorno kisaro banan kishanya alvelaya yorno kisaro kegle gibiloge korma mana kyamanya alvelaya yorno kisaro kegle yai muta jom katasa ma asam kasana jegna ne yangele yai buka jogata sa fa podo ma asam kasana jegna ne da Gaynde Pataar luy sa problème. problème arbitre bi dañuy yàq lam xam man njëkk na ma taxaw bu ma taxawee su ma taxawee ñu ne ma nee ngay taxaw bu ma taxawaa dañuy mu ne fële ngay taxaw te man fii laa dëkk bëgguma yàq lam quoi. ndax man ma ñu fi ñëw ñëpp maa leen maa leen di ganale mais kon ak nu mën demee rek nañ ko teg yoon parce que ñoom bëri nañ bëri ñu dem ba ci kaw saako mi dem ba ci kaw saako yi at bi suufle man ma bàyyi bi mu bàyyee moom mu continué man moom mu continué waaw non comme du mboot de dafa continué waaw caxabalu ginnaaw la def bi mu defee caxabalu ginnaaw mais def rétraction pour génn voilà très bien mu suufle léegi bi mu defee bi ma kalee may def rétraction pour génn moom mu continuer. bi am na loola yoon may defal rek. li ma yoon man mooy sama ménagère def na ko moo laaj gi mooy sama ménagère mais ak man demee rek nañ koy teg ci yoon quoi waaw. yaay booy maa ngi lay ziare. yàlla yàlla nangu ziar. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm bu baax a baax a baax. noo gisee làmbu Aliou Sène sa doom sa xarit. waa Aliou di ko ñaanal jàmm rek di ñaan jàmm bu baax a baax a baax. waaw ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax lii jàppale xale yi rek. ñaari yoon nga koy woyal làmb. waaw loolu bii mooy ñaar deux fois ma di ko woyal làmb waaw. sa diggante ak sama doom la sama doom la sama xarit la. waaw mu nekk promoteur boo xam ne comme mu ngi jàppale xale yi il faut que ñu ànd jàppale leen rek. ndax euh, bëgg fi mu dëkk la. waaw dafa bëgg cosaanam. xam nga mënoon na ne maa nga bitim réew lu mu néew néew néew maa ngi am li ma maa ngi for sama tuut. waaye mu ne xaaral li ma am xaaral ma bokk ko jàppale ko xale yi pour ñu mun a am ñoom itam loo xam ne dinañ ko amal seen bopp loolu mooy problème bi rek di ko ñaanal jàmm. mais yaa ndey Fatou. waaw ma seet see ca koor ga. ànd ak Abdou Waxal. danga maa danga maa defaloon lu doy waar. waaw loolu dafa wër àdduna loolu dafa toj rek dafa toj. waaw loolu àdduna rig na rigoo <laughs> <laughs> loolu fa loolu faaw ñu amaat ko. waaw danañ il faut ñu reprendre ko def ko ba mu normal. waaw allah. <laughs> Cey Momo le fils héritier son père waaw waaw nee naa la kéwél du tëb doom ja bëtt lu juddoo ci bisaab màggee ci daxaar kenn du ko laaj forox tollu la war a def alaaji baabu ngom mooy sama papa ni nga a mel waaw waaw Tá, tá, tá, tá, tá, waaw waaw waaw Sa sangi a ngi noonu borom jannatu xelab tuuba baa ngi noonu diiroo ko andi diiru Baye Fall sànq nee na ma Sa sama doomu ndey la waaw waaw gis nga mbokk ndey koy jur xale yooyu la àndal waaw waaw cëy loolu. ay ca nag bi maa ngi lay ziar. delloo ziar Mbaye Babacar. baam nga jàmm am naa jàmm bu baax a baax. sant yàlla bu wër di ñaan yàlla mu suturaal ñu. dan ñoo yëpp waa Mburaay dan ñoo yëpp. di ñaan yàlla rek sama liggéeyu ndey yàlla na ma wallu si bés bi incha allah ma daan ko jël bu leer si barke sëñ Touba kon. ma laaj ko léegi mu ne ma moo la ëpp moo ëpp doole daa xalaat bëri. loolu xalaatam la wax rek incha allah yàggatul dina leer si kàttanu yàlla. yàlla na yàlla ànd ak jaar yàlla na yàlla ànd ak ñun dina xeex dinañ bëre si kàttanu yàlla. dinañ xeex. dinañ bëre incha allah. Ah. si kàttanu yàlla mën naa gaaw. mën naa gaaw incha allah te day gaaw sax. xaar day gaaw incha allah. Ah. day gaaw incha allah. xeex bu xeex bu day gaaw day gaaw incha allah. ay ca mbokk yi Sa Thiès la ñu taxawal. borom jannatu borom géejawaay mbër maa ngi lay ziar. waaye Mbaye Babacar maa ngi lay fay di la doole ziar di jox sa wàcc waay. Mm-hmm. yaa ngi waajal. pare la ñuy wax. pare nga allah. tey lan lan mën a xaar. xanaa ma jàpp rek daan ñibbi incha allah. xale bi ngay bëre. daanaan la. kulu fadri xajam ci Sa Thiès lay dëkk bi. doomu dëkk bi doomu dëkk bi bëgg a wax foofu. la. ba pare naa la naa la ko tekkil. après combat foofu après naa la ko tekkil. tey ban façon combat lañ mën a xaar bu gaaw wala bu yéex. préparé nañ lépp comme ni ñu daan préparé suñu yeneen combat yi dinañ préparé nañ xeex préparé nañ bëre nu mu indi rek dina ko fekk incha allah ci kattan yi. préparé nga xeex ak bëre. ak bëre bu mat sëkk. mën nañoo xaar Sa suul ay tànkam ndengeñ boppam. ku euh, fi ñu takar naa sax. ma de lu fi indi fekk ko pare naa lépp dañ maa préparé damaa wax. ko nee na ma moo la dàq bëre moo la mën. ki dàq bëre ku dàq xeex yàlla na ko yàlla may ndam. Mhm. ku dàq bëre ku dàq xeex. ko ëpp sañ-sañ ko ëpp fit yàlla na la yàlla may ndam am na sañ-sañ de. ma ku dàq bëre ku dàq xeex ko ëpp sañ-sañ yàlla na la yàlla may ndam. Mhm. ñaay dem ci kanam. ayca elage ñu ngi noonu dem ci grand combat bi diggante nag bi junior ak ki nga xamante ne bii moom mooy Sa bu jannatu nag bi junior moo ñu woon gannaaw cey loolu nag bi junior moo ñu woon gannaaw Sa Thiès la ñu jàkkaar ma ngay ñaan cey bii combat ñaari xale yu mën a bëree tolloo taxawaay tolloo bind maa la ko wax nuroo nuroo takk li ñu takk maa la ko wax ci laal yoon sama xarit bi kenn du yow nat bi junior Sa ñoom ñaar ñi ngi la waatoo waaw Sa la dëkk jannatu Sa bu jannatoo ngi noonu Touba am na ay mbër maa la ko wax cey loolu kaana kaana sëñ Fallou am na sëñ Fallou am na lu ne Fallou daa yaatu gannaaw attention nag bi junior Sa Thiès Sa Thiès cokkaas na léegi mais dalul ñoom ñaar attention lay laaxi la ho ho ho jeex na wala jeexul lay laaxi la la xale ba daw na génn daw na génn ay ca élage arbitre suuf la na génn seen diggante ñoom ñaar Sa nag bi junior attention nag bi moo ñu won gannaaw Sa Thiès la ñu jàkkaar lool oh oh attention Sa na mais dalul mi ngi dox ci kawam attention ñoom ñaar daw nañ daje Sa Thiès dóor oh oh dañoo nuroon ni ñuy bëree wax nga ko léegi laal yoon Aliou Sène mu def kenn xamul lu mu doon borom Saay Jaamaane production yëngal na réew mi waaw borom Allemagne. sama rakk joojee nga xamante ne bii macha allah lu mu mën am Sambe ko ko gënal nee na ma guddi guddi Sambe attention lay laa xela la nag bi junior jël na tànk ba ah xela ba rëcc na mboot attention jege nañu saako yi oh oh laa ilaaha illallaah oh na laa ilaaha war na ko ndombo Sa Thiès war na ko ndombo ma ngay door Sa Thiès ngay door Sa Thiès ngay door laa ilaaha illallaah arbitre na arbitre souffle na arbitre na

torox tollu la war a def alaaji baabu ngom mooy sama papa ni nga war a mel waaw waaw. Baila, amigos, saludos.